demuñu ci câble haute tension yi fi ma taxaw ni amna ay câble haute tension yi ma jege demuñu foofu laaluñu loolu dañu jël câble yobbu câble yi acte de vandalisme le acte de acte incivisme le ak aussi acte criminel la mënoon nañu am accident ferroviaire ci train bo xamné ne Sénégal yëpp ñoo ko accepté ko diko ko jël tey fukki ak juroomi junni doomi adama demuñu liggéey ndax loolu mënoon nañ am catastrophe ferroviaire li ñu def ñom xam nañ ko waye

le temps que ñu réparer ko dinañ ko réparer tay ci goudi suba ñu reprendra ko ay gendarmes nak amnañ fi yu bari amna 238 gendarmes yu surveiller terre terre nak 36 km la mënuñ def ben gendarme ci chaque mètre ça va faire 36 000 gendarmes sensibilisation conscience yar ak tegin bokk yor président Macky Sall def indi train bi sénégalais yi gis ko xamné lu bax la walu sécurité la nit nak ñew duggu ci xal wi train bi daw ni 30 km la mini parce que ci zone bi lañu ñu câble bi ba mu dem ba ci kanam mu soog dawat ci vitesse normale bi ci bële voix gis ngeen ko dafa jaar léegi daw ci yoonu normale bi ci voie normale bi pour juste ngeen comprendre lii moo xewoon démb ci guddi ñu waroon ko wax sénégalais yi combat bi nak combat c'est le combat de toute la population ñu war taxaw bañ li xawmo ma lu tax ñu def ko xawmo lan moy seen yéene acte de sabotage la acte de vandalisme la acte d'incivisme la acte criminel la dañu porter plainte contre X gendarme yi fi yi fi nekk nañ jël seeni walu l'État ne sera pas faible, c'est un acte dangereux. TER dafa am système sécuritaire moderne système fiable musiba nag ci lu tuuti lay commencé lii il faut mu dokk il faut mu parce que suñu arrêté wul sans sensibilités nit ñi feneen la ñu jëm dugg sax ci plateforme bi dangereuse parce que mënoon nag ci dee Il y a dugg xaar deux heures de temps pour nous jël ay conditions de sécurité pour ñu yegg si ken fii kenn waru fi yegg te nako personnel wala nekkoo gendarme bi liggéey ci walu tayar